société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo yi assemblée nationale validé na bi nga xam ne rek moo jëm ci élection présidentielle yi yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ne député yi kay nag dàq nañu ko ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 séance plénière boo xam ne rek amal nañu ko démb ci pëccëxoo gu méttee métti ay requêtes yu nar a bëri lool ca conseil constitutionnel laa si yëglekaay nag jamono joojee xam le ni nag député yi kay moom daal dinañuy tànn nag fukki fan ak juróom ci ci weeru décembre atum 2024 gi nag ñu ko amalee ci teewaayu takk der yi yéenekaay bi nag ne fitna gi kay démb foo ko takk weesu na proposition de loi boobee nag bi ñoo taxaw ci biir assemblée bi nag fees ko dell ne duñu nangu nag benn yoon ñuy salfaañi suñuy démocratie bés bi le jour ne bëccëgu démb bi kay nag dafa meloon ne xare ba dara waa wallu ak waa bennoo bokk yaakaar adopté nañu nag loi bi te amul benn coow ay saaga ak i dóorantey teewaayu waa gendarmerie nag loolee lépp nag nemmeeku nañu ko démb ca pencu ndaw réew ma ab décret boo xam ne rek daañu ko doxal ginnaaw bi ñu adopté loi bi ba noppi nag ay motion de censure audition jëm ci premier ministre rawatina nag connexion boo xam ne rek dañu ko koo bloqué Walfadjri ñu daal di koy tëj nag retiré seenub licence assemblée nationale dàq na élection yi ba fukki fan ak juróom ci weerub décembre atum 2024 yéenekaay bi di Le Quotidien dellu siwaat ci date bi ñu jàpp nag ngir amal ci wootey njiitu réew mi nag député yu Benno Bokk Yaakaar et démocratie nag daal dinañuy amal wot gi ci teewaay ñii di way takk der yi yéenekaay bi ne fukki waxtu yoo xam ne rek amal nañu ko ci ay coow ak ngir lu jëm ci wàllum lu loi boobee nga xam ne rek dafay may kii di président Macky Sall ngir mu des nag di doon njiitu réew fii ci réew Sénégal fi léeg ñuy xam nag anakan moo koy wuutu ci bopp réew Sénégal report élection présidentielle yi nag Sud Quotidien ma ngay xam ne ne assemblée nationale nag ànd na ci ku jégi démb waa GIGN dañu leen a jiital ci assemblée nationale génnee leen ca biti nag yéenekaay bi di Sud Quotidien conseil constitutionnel nag moo fas yéenee doon arbitre bu mujj bi nga xam ne rek mooy joxe dogalam jàll na kay ci assemblée nationale démb la ñu ko daal di amal nag l' observateur dellu siwaat ci mbir yàgg na mu xawee démb ca biir assemblée national ne bëccëg bi tàngoon na loolu démb ca pencu ndaw réew ma yu sundur nag ma ngay xam xamle ci biir yëglekaay bi ne àndul benn yoon ci tuxal gi ñu tuxal nag lii di élection présidentielle yi ba noppi nag di ñaawlu li xew jamono ji fii ci réewu Sénégal libération ne jaay nañu leen doole ba noppi nag woote par nag lii di loi bi nga xam ne mooy dàq élection présidentielle yi ba ci weeru décembre atum 2024 waa parti démocratique sénégalais ak waa Benno Bokk Yaakaar nag jëlee nañ fi élection yi nga xam ne rek moom la ñu jàppoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 Diomaye Faye Malick Gakou docteur Cheikh Tidiane Dièye maam booy jaawoo ñoom nag fas yéene nañoo yóbbu mbir yi ca conseil constitutionnel Guy Marius Sagna nag di xam ne ci biir yëglekaay bi ne lii moom ab kàcc la goo xam ne rek état bu Sénégal teg na ko ci ndoddub askanu Sénégal Walf Quotidien ne trahir nañu bi ndax assemblée nationale yokk na mandat njiitu réew mi nag ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre Abdoulatif Coulibaly na président Macky Sall lii mu def nag moo gën a pire fuuf lii di troisième mandat ci la Soleil yëglekaay nag ña ngay xam ne ne fukki fanak juróom ci weeru décembre atum 2024 ci la assemblée nationale nag dàq élection yi ngir ñu daal di ko ciy amal lu ni mel nag mën koo may moom président de la république nag ngir mu daal di mën a wëy di doxal nag ci réew Sénégal fi léegi ñuy xam ana kan moo koy wuutu ci bopp réew Sénégal naam sax nag nee na du bokkaat ci les élections ci beneen boo xam ne rek jamono ji mi ngi ci loxol yoon mu di Rose Wardini moom nag daal dinañ koy defeere niki démb ginnaaw bi ñu koy toppee ay chef d'inculpation yu bëree bëri yéenekaay bi di 24 heures dellu siwaat ci waa Restic yi nga xam ne rek ña ngay ñaawlu ci biir yëglekaay bi li ñu coupé nag lii di internet mobile nga xam ne rek 95 pour cent ci wàllum transaction économique ca lañ koy jaarale nag mu doon loo xam ne nag dina indil ay jafe-jafe ñi yëngu ci wàllum secteur informel bi nag fukki milliards ak ñaar dina ko dugal ci wàllu PIB bi bés bu yàlla sàkk fii ci réew Sénégal tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale réew mi sport nag ma ngay xam ne ni Krépin Diatta ginnaaw kàddu yi mu yëkkati woon ci suñu jongante bi doxoon ci suñu diggante Côte d'Ivoire jëm ci wàllu arbitrage bi jamono ji nag waa CAF ña ngay waajal ay enquête ci seen diggante ak joueur bu Sénégal bi ñeneen ñoo xam ne nag jamono ji gàlloo nañu relève bi nag mu di Pape Gueye Pape Makhtar Sarr Lamine Camara Krépin Diatta Jacob ak Iliman Ndiaye loolee nag léegi lekkaay bi di stade xëy dellu siwaat ni tey ci wax ci suñu làmb ak lu jëm ci CLAF 2024 bi ginnaaw ba cëg bu njëkk bi ma ngay dellu